قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى هاجت قصائدي قلب كل من له سعادة ولن خاد الأمن قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى هاجت قصائدي قلب كل من له سعادة ولن خاد الأمن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 ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu àq te di leen baal àq ginnaaw bi ñu sante suñu borom julli ci yonent bi di ñaan ci barkeb Cheikhul Khadim Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké mi fi jëwriñi Xaadim Rasul suñ borom yàggal ko fi lool te mu wér ba mbooleem naal ak yéene yi mu am ci liggéeyal Serigne bi suñ borom kattanal ko ba mu def ko nu kowe njort ànd ko ak mbooleem julliti ak taalibe yi mbokk yi boo leen gisee fi ñu taxaw ci bërëb bu tedd bi di jumaa yi Touba tey ji nag di alxemes fukki fan ak ñett ci weeru juillet atum 2023 dëppoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru tabaski wi atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay gi. tey ji nag di ñetteelu édition ñetteelu yoon bi Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké joxe ndigal mboolem murit ngir ñu dundal nag bisub it fii ci Touba ak li ko wër noonu lañ koy dundal itam bitim réew ci mbokki taalibe yi nga xam ne ni foofa lañ ko foofa lañ fare mbokk yi xam ngeen ne Serigne bi mu joxee ndigal li teg ko ci yoxooy isbu tarxiya mu ànd ak sëriñ Amsatu Mbàkke ak mboolem waa ahlu xasida mbooleem daayira fédération ak daara ak mbokki taalibe yi yëngu ci wàllum xasida nekk ci biir réew mi ak bitim réew def nañ communication bu am solo te matale yaatu lool ngir wuyu si ndigalal sëriñ boobu loolu nag tàmbale nañ ko ci ay plateau ak ay reportage ci mbooleem yenn télévision ba ci site internet yi nga xam ne ni dañuy liggéeyal sëriñ bi waaye loolu ànd nañ ko ci mbooleem liggéey bi nga xam ne ni dafa jiitu bis bi bu ñu waxee lu mel ni wàllum bâche yi wàllum restauration di xéewal yi wàllum ndox mi wallum kaaraange ak lépp lu ci aju waaye noonu lañ ko defee itam ci kilifa aada yi nga xam ne ni mbooleem service étatique yi nga xam ne ni seen loxo dafa war a tàbbi ci liggéey bi gis nañ leen ci li ciy firnde rek waa police démb def nañu benn plan de circulation bu am solo boo xam ne nii gis nañ ni ko respecte jumaa ji yaatu na waaye gis nañ wàllum kaaraanga itam mbooleem force de l'ordre yi ñëw nañ ngir ànd ak mbokki taalibe yi ci bis bu tedd bi bis bi nag xam ngeen ne ëgsi na bi nu xëyee ginnaaw julleek fajar fii ci jumaa ji ngeen gis baas bu yanj bi nga xam ne nii foofu la am satu Mbacké nekk ibnu Serigne Soy bu buñ ko tuddee ñëpp xel yëpp dem ci wal ak cër bi mu am ci wàllum xasida ci la ñu daal di ñëw moom ci la daal di ñëw tàmbali durus bi ñu tàmbali njàngum xasida mi diggante sëñ Ibrahima Gueye ak sëriñ Abdoul Ahad Touré ci xas daag ma lëbul foy zeyni bin pare itam kuréelu isbu tarxiya bi nga xam ne nii fajar gu det dañuy fajar gu jot dañuy jàng Matlabul Fawzayni ci ndigal sëriñ bi ñoo ci tegu bin pare nag daal di def benn kuréel goo xam ne ni mën nañ ko xayma ci sun wala mu ëpp ko ñoom ñëpp àndandoo sol lu weex tàll di jàng xasidaay sëriñ Tuubaa Cheikhul Xadim yi lool nag day daal di ñëw ci bennoo gi nga xam ne nii sëriñ bi woo na ci mbooleem mbokki taalibe yi waaye nii ñu ko gisee ci biir jumaa ji dem noonu lañ ko gisee itam ci mbooleem wuntu kër yi wër jumaa ji kër sëñ Fallou kër Cheikh Abdoulaat kër sëriñ Saliou kër sëñ Abdou Khadr kër Serigne Abdou Borom Dër bi kër Serigne euh, Ibrahima Mbacke kër Serigne Mbacke Madina Daarul Xuddoos Daaru nam ak mboolem bërëb yi fasantikoo ci tubaa benn jëf ji rek lañ fa euh, seetlu muy àndandoo jàng xasida liggéey Serigne bi ci ak bennoo loolu itam ñi nga xam ne ñooy bind wàllum xasida mi kenn demul ñu des ndax boo demee ci biir kër Serigne tubaa ña nga fa diggante góor yàlla yi ak soxna yi di bind xasida yi bun paree jébbal ko sëriñ bi mu nekk ab liggéey boo xam ne ni daal ren mooy ñetteelu édition bi ñu mën cee jàngee nag ne Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul li mu bëggoon ci murit mel na ni Serigne Mountakha Touba mu ngi koy réussir muy bennoo àndandoo liggéeyal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ndax liggéey bi képp koo xam ne ni ñëw nga bërëb boo dem doo xàmmee daayira wala kër sangam wala daara sangam taalibe Serigne Touba xasidaay sañ Touba liggéey sañ Touba rek lañ fi gis. kon incha allah rabbi nii lañ ko fas yéene yendoo ak yéen jàng xasida jàng alxuraan bernde. ba gannaaw tàkkusaan niñ ko waxee woon sëriñ bi daal di ñaan ñu dellu ci ite yi waaye jàngat bu am solo bi nga xam ne nii war nañ ko mën a def tey ji ci bis bi mooy jàngat boo xam ne nii bu buñ ci jógee mbooleem luy noonoo mbooleem luy yenn jikko yi mboolem luy boddekonte ak bàyyante wala sorente diggante murit yi yaakaar naa ne war nañ koo xeex ba dootul am ci suñu diggante ndax sëriñ bi lii rek la ñu bëggal doon benn liggéeyal ko ba làq ngërëmam ci ak sell kon ñu ngi ñaanal mbokki taalibe yi ñuy seetaan ci réew mi wala bitim réew ci suba ak léegi ci liggéey bu am solo bi yàlla nañ ci daje ak ngërëmal sëriñ tuba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ñaanal na ki nga xam ne moo ko fi nekkal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi loolu te waaye duñ fàtte benn yoon itam tagg kañ ñi nga xam ne ni ñoo yëngu ci wàllum communication buñ ko waxee mooy fasantikoo ci wàllum site internet rajo télévision ak lépp lu technologie boo leen gisee image yi tey mën a jàll fu ne benn identification du ci am dañoo booloo ngir liggéeyal Serigne Touba Cheikhul Khadim bërëb bu nekk ñu am ab équipe bu ñu fa yóbbu muy def direct ñeneen ñi dem sur le terrain di indi ay éléments lépp doon benn tabal ko ci cadre liggéeyal Serigne Touba Cheikhul xaddim kon mën na ne ab jàngat la ab test la casting la ñeel bis bu tedd bi ñu jub si muy bis bu màggal ak Touba yàlla nañ ci àgg ak jàmm di leen jaajëfal wasalaamu aleykum wa rahmatullah xasaayidi mi mujizatil muntaqa salla alayhi man hadahu wantaqa xasaayidi mi mujizatil muntaqa salla alayhi man hadahu wantaqa haja qasaidi ya qalba kulli man له سعادة ولن خاد الأمن قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى هاجت قصائدي قلب كل من له سعادة ولن خاد الأمن